aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki lislaam yi bokki deret bokki tiin bokki dëkkandoo yi bokk yi fi teew te yàlla nar noo boole kaar boolu teraanga lislaam bii nu nar a dëkk ñu nar a ñu leen di nuyu olof yi nag dañuy wax ne tàgge bu ne am na jàppal diw boo gisee ma wax mbokku diine yi door a wax mbokku deret wala mbokku tiin min chiati tiini aw fi diini Sidi Haj Malik wax na ko yàlla waxfir lana wali man min baynina nasabun nasab bi nag moo xam min jiati tiini la aw min jiati diini mbokk dafa bokkul ak dëkkandoo ak dëkkaale mbokk wa uxwatu fi diini aqwa aqwa min uxwati tiyen bokku diine moo ëpp doole bokku deret ma bokku meen li la koy xamal ci sariya mooy sa way jur wu góor wi li tax bàyyi mat a fonk ak yaay sëriñ Bachir xoolal rek ni mu def yi bëri ak ni yàlla njàccaaree njàccaare gu ànd ak sañ-sañ bu mu dul diisoo ànd ak mën-mën bu mu dul laaj ndimbal muy xool nit ñi di leen xool guddeeg bëccëg noor ak nawet par xarnu par xarnu par xarnu xarnu mooy sekel mooy cent ans nit ku ne yàgg si papa marché parce que àlaxira par cent ans la ñuy réglé par cent ans mille neuf cent un ba cent ñoom ñoo la ñuy réglé ndoo cent ba deux cent ñoom la ñuy réglé ndoo deux cent ba trois cent la ñuy réglé ndoo moo tax ku ne yàgg si papa yéen a marché ko bokkal xarnu ku ne yéen a marché mu xool nit ñépp benn xool yi xool jigéen ñépp benn xool yi nga départandoo yaag maam Adama mu retard sa arrivé avancé arrivé maam Adama ak nox chicha di leen avancé di leen retard di leen retard del di leen retard del di leen retard del ba gis xarnu ne xarnu bi ci nga war a gane àddina li tax bàyyi mata fonk ak yaay mu tànn nag jamono boobu ñuy dund ñépp visité leen tànn jigéen ñiy dund booba jamono yépp visité waat leen sa dernière étape pour nga arrivé pour nga arrivé ci société bi dernière étape bi nga mujjee départ yow yaa nga commencé départ yaa ak maam Adama départ ndoo ay mille mille mille ans mais sa dernière départ bi nga xam ne ci ngay départ aksi mu tànn góor gii ne ci moom la laay mujjee dénk tànn soxna si ne moom la laay mujjee dénk toxale dénk bi dernière dénk ci ndigal baay jox ko yaay dernier dénkaane ci biir yaay yaay jur la nga dugg ci société bi en ce moment là booba jamono nit ñi du jeex góor ñi du jeex jigéen ñi du jeex waaye ñooñu ñaar la tànn ne moo ko neex pour mu jaarale la sa ñëw ci nit ñi ci ñooñu ñaar waaw gars yi lu tax lu tax lu tax lu tax mu bàyyi Bachirou Kounta bàyyi ci ngaale jaan et puis ne xaasim ji bu saafee doon sa papa lu tax wa rabbuka yaxluqu wa yaxtaar maa kaana lahum alxiyaar am na góor gu góor gu taxawoon ak Moustapha jegeñ ko it ci mbokk yàlla dimbali na ko it ba mu duggoon ci lislaam waaye muy def ñaare mu nemmeeku ñaare ne su dikkee di siyaare si ne bi mbaa mu di ko wax si soxla mbaa ñuy waxtaan ñaare bu fi nekkee bu fekkee Xasan ak Huseynu ñuy ñaari sët yu maam teg ci ay poojam aussitôt góor googu nuyoo rek xale yi daw dugg ci néeg yi dugg ci seen yaay boole kooku jooy Muawiya la góor gi Muawiya tu la Muawiya defe naa ne Saxra Abu Sufyaan moo jur Muawiya Abu Sufyaan tuddul Abu Sufyaan Sufyaan ay taawam ñu di ko wax bàyyi Sufyaan Muawiya tu la tudd mais Saxra la tudd bun ummiyata bon xaar ba benn abdou samsam abdou manaf ku say kilaab nga dog ngir mi fu la foofu la bokkeek rasululay waaye mu nemmeeku ne xale yi lu ñu wéttali ko wéttali ko seen maam ak lu waxtaan wi neex neex bu ne salaamaaleykum rek si ne tëppét ba mu jaaxal ko bés mu ne Moustapha man de jaaxle naa sa sët yi ne ma leen soppi xam nga léeg-léeg nga gis gos di ko topp muy bañ ak gos boo xam ne da nga koy jub mu daw song si la dina nekk taxiya dina nekk jabaliya parce que gos bi sa gàcceeg gàcceeg toroxteeg gàcce dina ko sentir ci yow avant sax mu mësul mu ne Moustapha xale yi lu tax bu ma fi ñëwee rek ñu daw na di ree na ko yaa leen di rëy man man ma rëy koo jur na bi na ko waaw boo leen rëyul bi mu basira tit yaay jur ku leen rëy Abu Sufyaan ne ko maaw yéene ko ndax sama doom jooju war a rëy sa doom yi juddu na mën a ko juddoogul mën a ko ko dootoo juddu dem dem kër ga fa sa jabar yépp na dootul si waaw ba jàngoro ji ñu wër kam dal ko docteur yi toj toj mu tëb góor gu mu dal nag médicament bi lay tàggale jàngoro ji mooy siñ foog mën yu génn ci yow mbaa du wér mu sonal ko lool te itam nag nabi wax na ko wax bi te bëggul a jur ku mel noonu tase na waa kër gi yëpp bi nga xamee ne docteur yi consulté nañ ko baat bi di benn daf nekk ay xanaa ma tagga ma ma takka nogoy ma takka ak nogoy ak nogoy koo xam ne te jur wees na ci moom waaw Basiiru ku jur ci wees ci moom ku jur wees ci moom xanaa ku ko yàlla weesale maam Ibrahima du muy taalu cent vingt ans la am jabaram am quatre vingt quinze ans mu def mu def noonu dem takk nogoy ga nogoy ga ëmb jur Yezid moo posonlu Xasan reylu Xuseynu ca Karbala bi ko bi ko bi mu xamee ne Maawiya bi muy génn àddina Habu Sufyaan bi muy génn àddina Maawiyatu bi muy génn àddina dénku ne Yezid ne ko mbir mi kat nattoo koy indi ci ñu loxo waaye duñu borom xale yaa ngi bàyyi leen xel asana ko si néew peuple bi bëgg leen lool ngir liñ gisati yonent bi bu lekk mukk te fekkul ñu lekk ba noppi bul oddu mukk te fekku ñu oddu ba noppi loo mën ci daw nag luy jur seen tàngu xol def ko respecté na ko waaye nguur baaxul xam ne xale yi dañ koy xatal rek finalement parce que nit ñi moom lañu jublu mu fexe ba waxanteeg jabar yi xasan xasan alaaji gars yi xam nga xasan lu muy firi xasan xuseynu nag am na ñuy wax ne cheikh la ñu waaye du ñu cheikh xawante màggante nañ juróom benn weer wa min annaasi man yaqulu rabbana aatina fi dunya wa fi laaxirati xasanatan pireem yaa na torop ci àddina yàlla dana nit ñaam na suñu njàccaare ñoo xam ne buñ mënee loxo bàcc ma taataan suma nopp déglu leen àddina rek lañ ci sol ba mu fees seen yoon ci àllax waaye am na ci ñu yeewu ñoo xam ne buñ mënee loxo bàcc ma saataan suma nopp ñu yolol mu solal ma ca àddina ak àllaaxira mu ne ñooñu ñooy saxi ëllëg ak tey wa min annaasi man yaqulu rabbana xaatina fi dunya xasanatun wa maalu fi alaxirati min nadib waaye nag wa minhum man yaqulu rabbana xaatina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasanata ulaika kay ñuy werante ne luy yiwu àddina yu yàllay tagg ña ko koy ñaan yiwu àddina bari na werante mais yiwu àllaaxira benn rekk la yiwu àllaaxira mooy àjjana bu àddina bee bari coow ñii ne nañu mooy wërsëg wala fekk fa nga juddoo ñii ne nañu mooy déggoog say bokk ñii ne nañu mooy doole joo jeexal ci topp yàlla ñii ne nañu mooy capital boo sacrifié pour bëgg ngërëmal yàlla am na sax ñu ne mooy jubóog sa jabar yiwu àddina mais yiwu àllaaxira amul werante loolu ñu ne mooy doom ju góor ju la déggal mais yiwu àllaaxira amul werante mooy àjjana kon xasan bi àll yu taawloo te doon ñaan yàlla asanatoon fi duniyee mu taawuloo xasan mu ne un asanatu benn yiw yàlla may na ma ko mu feral amaat doom mu ne ujenay ni deux ñaari yiw bu jëkk bi benn yiw la bu ñaareel bi ñaari yiw la waaw atina fi dunya kay mu am doom ju góor ne jaa asana mu fer moo am beneen mu ne usina yi nii des na yee xasan la mu fexe fexe fexe fexe ba gis soxna sa dikku som bu bari ak takk ko ci bu fexee ba posonal ko waaj li tax kaar ñu naan jigéen soppal te bu wóolu am na benn poète boo xam ne benn waaye ko laaj gën jigéen a baax ci jigéen ñi mu ne ko ji nopp te nobel ga jeexagul ki nopp te nobel ga jeexagul kooku rekk ci baax waaye bu nobel gi jeexee da ngor war fee def ak coono kooku rekk mu d'accord ak moom mu jox ko poson mu poson xasan poson bi commencé di am pulwaaye yëb yi ñaqa rek nopp yi di riir Yuusufa ibnu Kulda docteur bu mag la woon moo ji ko def consultation bi ne leen dafa lekk poson su fekkoon ne tudd na ki nga ko jox de te xam ko pexe dinañ ko mën a def ci raxas ay cëri kooko boole kook liñ koy jox dina sooy rakk ji taxaw ne ko foog nga wax ki la ki la jox posono kii maslaa agu ci kii l'islam du l'islam ndax doo sacrifier sa bopp nu topp moom xam ne ki ko jox poson ala innahu fi sabri ka taw di jalaala
في شر كتاب جلالة يجيب إذا دب اللزوم بدال علينا بشر كتاب جلالة يجيب إذا دب اللزوم بدال ويكتب من أتى رسما لسنين مقام نظر والكريم حمال ويتم من أتاه ثمن لسنه موته ويكتب من أتاه ثمن لسنه مقام نظر والكريم ماله ويتم من أتاه ثمن لسنه
Sidi Xaaji Malik jazaahu Llaahu an al-islaami xayran nee na gorongo gorongo bu tëdd gor bu gor jur borom dënn bu réengoog bu mën a muñ ala waawee arafu tanbiih la arab bu lay wax nu mu bëgg nga déglu ko foog mu indi arfu linkaar mbaa tanbiih mu ngi mel ni rek den rek nit di wax ak moom ne mbagg mi nuus nii ko hey allah waawee ma yëgal leen su ngeen xamulee innahu xale boobu ñox asan fi sabri laa wax fi sabri fi sabri laa wax de ndax tas ndax tasbiha tasbiha te atte bayaan day am ñeent ñeent yoo xam ne bu yembul yoon du la may ci làkku arab nga def tasbiya maanaam nirale nirale foog nga am loo nirale am kooko niraleel am loo leen nirale musabaha musabahan bihi waccu tasbiya nga door ut adawatu tasbiya tasbiya door a mën a am ma tax comme alaaj Malik dafa jeexatali ba mu ne alaa innahu fi sabri alaa innahu ka tawdi fi sabri kay alaa innahu ka tawdi fi sabri misla arfu tasfiye dina jiitu baat dina ànd ak moom dana nekk après baat bi alaa innahu xale boobu ka tawdi mu ngi mel ni doju montagne boo xam ne du xeer wu xonq xeer wu ñuul la xeer wu ñuul day tëx marte du ko teg bërëmin du ko teg moom la arab tudde tëw di mu ngi mel ne xeer wu ñuul ci sabri laa wax nag ci sabri waxuma ci réyaay waxuma ci poids kooku mooy waccu tasbiha bi nirale bi mu nirale xale bi ak xeer nirawu leen ci diisage nirawu leen ci couleur mu ngi leen nirale ci xeer ne mu antone muñe nga ut ci li ñuy wax was taal ci koom fa bërëmin teg ko tabax ci te du onk noonu la xale ba mel moo tax mu ne fi sabri laa wax mu ngi mel ni taw di jalaala mu ne naka ci pexe isaa taabal usoolu yëtti bu fu soolu am déet mu ne kooku noonu la mën a mel ku Aliou di ca bàyyi Aliou nabi nabi mboolem sàbba yi ku ci ne wax na la li ki lay rey ak li lay rey ak sa ngay dee ci seen dund ku ci ne wax na la ko daana wax na Aliou ah allimta asqa naasi min al awalin xam nga kii gën a metti safara ca mag ñu jëkk ñu mën a ko déedéet mën na ko xidaat ibnu Saalif xam la kuy kooku moo reyoon gileem gi gileemi Saalif aw ga waa jakar yi xidaat ibnu Saalif la tudd ne na ñu mag ñu jëkk ñëpp moo ci gën a metti mbugal daal di ko ne xam nga kii gën a métti mbugal ci ñu mujj déedéet mu ne ko déedéet mu ne ko ki lay caw jaar si deret ji jaar fii jaar fii muy ibnu mal jën xam nga saaba yi basiru wuñ la koy nettali nii ngay di dégg seen tur loolu leen nga juwaale ci maa ngi koy wax xale yi sax bi ci gàmmu gi ñu baree bari dañuy defe ne Omar am ak Ousmane Ousmane màgg na Omar six ans encore itam fekk ko dugg ci lislam mais fi Omar làbbali ba jël déesi moo jaaxal nit ñi parce que waa jeeg ko mag fekk ko dugg ci lislam te fexe na ba koste Ababacar ba wi Ababacar dégagé kenn tuddul Ousmane preuve la ci trente neuf lu ñu ñeme ñun ki leen montale quarante tax ñu ñemeñ ko kooku bu teelu na dugg lislaam am doole nabi am na dix personnes te ñeme ñu la génn julli am na vingt sax ñeme ñu la génn ku ne di juddu di góor dem na ba am trente ñeme ñu la génn di nëbbu dem ba trente cinq ñeme ñu ko trente neuf ci la Omar dugg muy quarante quatre keroog lañ ne far ñu ci biti kooku bu teelu na dugg kon balaa siifar baa nga foofu yëf yi génn Abu Jahl defe naa daal li mu màggee na bi tout est tere mu ma trente ans xaw na ko mën a jur waaw Aliyu war naa nga war gi topp ko mu romb Ibnu Maljam moo ko mag fuuf fekk Ibnu Maljam a ngi toll ci bopp mu jël ko ci ki ko bootoon fab ko ni ñuy fabi bu ne foog moom delloo ko ki ko yoroon ne ki mu àndaloon kee may rey waaw kii moo may rey ñu ne ko nga rey ko ko mu ne kon ku may rey te du ma fi toog nag xanaa yetti bu yetti bu istaan sax ba du solo solo kooku bu juree doom doom ja war a mën a am ngor xam nga lu Maodo wax ne na wooyu yëpp tuma mu ngay nëbb ku mu doon nëbb san waaw rakkam saat saat lay doon saat noonu waaw mooy firi petit frère wooyu yëpp tuma mu ngay nëbb kan san waaw rakkam ja ku mu ko doon lu mu ko doon nëbb man ataawu sa man ki ko jox poson bi mu naan ko foog nga wax ko muy ba dëriñu ko ba jat yi dox muy ñaq rek xam nga lu tax mu nëbb ko ma xam fata saari ngir bañ ko feyeeku ci moom rek wa yëgtumu man ahtaawu saman li seen wihi maqaafata shaari wal karimu umooloo ma wax ne bokk ci déem yii dajale nu fi di pas-pas bu dëgg boo xam ne ña ko façon jiitu nañ ñu ba sax bàyyi ñoog moom diir bu yàgg waaye yàlla dimbale nu nuy ciy jéem a góorgóorlu ba tey jii ñu nekk ci di waxtaan quatre-vingt-dix ñi takk ñi takk biñ commencé piri piri mi deme ni jaañ male ak sunu mag ju baax jële Fatou doonoon sunu kilifa ñu di ko wax dooro defe naa ne mu ngi bëgg a am ay at biñ ko commencé lii waaye boo fi ñëwee tey fekk na fi da ngay defe ne biig lañ ko tàmbali ngir farlut ñuñ ko battale muy doxandi ba négal maag yéen nu ngi nuyu sunu mbokki cëddeem yooyu di leen gërëm di leen sant ilimaan chef de quartier membre yi di sant nag biram sàmb ak daam ginnaaw bi ñu santee pénc mi yépp ci këru xaash baada am alxuraan liggéey na ko ba tey ci xeeti tawri ci xeeti lidd naat la bokk ci këru xaash baada am tanazalul malaikatu kooku du am waroowu du xaas waa kay sikkaru xaas baax da am am na sikkaru am baax da xaas yow ma yokkumu rox kooku xaas la doon wax wal malaikatu ñu ngi leen di gërëm alaaj Babacar Ndoy bii mooy sunu ilimaan diirub li ñuy firi yàlla te na mu ngi teew ñu ngi yeesal sunu nuyoo ci moom alaaji ngaale mii nga xam ne kaar fii ci ca déen bu doon jëmbat fi lañ ko buddee sampi ko fañ ko jëmbat fàttewul benn jamono penc mi ak benn heure ñu ngi koy gërëm bu baax alaaji mbay jaañ abdu yàlla ko yàlla yërëm mu ngi toog sama xarit bu baax ba góor ga njaay alaaji ma jaañ njaay mu ngi toog chef de quartier bi démb maa ngi waxtaan ak Yaxya ci téléphone ci moom muy tudd waaja Mbeng kafaatu ku rafet ko mënoon a dem màkk alaaji mbay mbeng gaa yi ñun gan fekk ci sunu njaatige yu baax yi yu bokk ak ñoom teraanga lislaam juri ji mu ngi ndokkee lante yàlla mayete nañu jàmm ba téere bi teerati lu ci dugg ci njuumte mbaa damm damm moom mi du juum yàlla na ko jubbantil ba mu jub te réew mi ci dëkk bi lay dëkk jëkke penc mi ndax fi la xewe yàlla fi yàlla tuur jàmm def fi sutura yokk fi déggoo lu fiy tiis yàlla na ko yàlla dindi lu fiy njàqare yàlla na ko yàlla dindi waaye nag jigéen ñi ñoom kenn mënu leen a bañ a tudd te kat du fii rek jigéen ñi ñoom kaar yàlla leen defal ba lislaam jógee xadijatoo jikko tuub daayira bi ma doon gàmmul bii présidente ba xadijatu la tudd alaaji gay li nga gis bi ci jàng yooyu mos nga koo gis fenn kenn mosul gis loolu fii laa indi démb di def waxtaanu bëccëg ba julli timis door a daw dem dëkk bu ñuy wax Thiès semaine de fere doon jàng dalee Dakar ba Tamba waaye mosuma gis loolu mukk mukk mukk mukk mukk yàlla dimbale nu itam ba ñu wëlbati ko jullee si fii waaye jigéen ñu mel noonu kaar mosuma ko gis mooy jigéen ñi ci yor yor laa ñoo fekk ñuy mel mëli nekk ca waañ wa di tànn seen ceeb di toppatoo añ yi li tax sax ñu xaw a guddee waxtaan wi ñaari nit la woon ginnaaw bi jaañ accès ak ilimaan yow lañ doon xaar ak jigéen ñi ma ne l'islam gërëm na leen xadijatoo jëkk a dugg ci diine ji diine ji jigéen a ci jëkk a dugg jigéen jigéen a ci ñu ngi wax Ababacar mais xadijatoo ko ci jëkk xadijatu moom topp na waa ji treize ans wala dix-sept ans te waa ji du dara bi ko nabi takk lu mu am ñaar fukki at ak juróom te jëm quarante lu des pour am quarante quinze yooyu yëpp soxna su def ko ñaxetu rafet njort rek ñu naan toppewul waa ji loolu taar na bi nag dafa rafetoon bu jëlin bëgg na ko xadijatu bañ maawiyatu bëgg na ko xadijatu bañ abu sufyaan bëgg na ko xadijatu bañ ne bi amul dara mu boole capital ak ak boppam jox ko ñu naan taar bi rek ku ci dugal taar bi rek waa ji dépense sax mënu ko am dépense mu séyal ko séyin wu rafet ñaar fukki at ak juróom xam nga lu séyin wu rafet bu soxla jotee muy jëkkër bu service jotee muy jabar bu soxla jotee xadijatu di jëkkër bu service jotee muy jabar xam nga bu soxla jotee muy jëkkër mooy lan bu kayit